mais gars yi on vient de jouer quarante cinq minutes sans une seule occasion de but du yoon. ñoom ñaar dañoo am problème de gel moo tax du ñu paasante. c'est-à-dire yow foog nga comprendre yow tout lié nga. depuis temps booy jarul wax ku nekk xam nga fu ngay taxaw. kër su may ma lool na ci kenn laal morom mi seen. karawaas mbaa pikir rek yéenay choisir de ngay. force sa frappe laa am heure bu ma dóoree bal bi bal bi contre ñëw nekkatu yoo. doo ko am contrevent. kët xëy na yow xamoo quoi te man da ngay gis ma téye bal képp bal public bi yuuxu jooy du man du ñoomee suñu borom la. al ma ñaax bi si man di xëccoog man ñaax bi tamay attaquant xooñ jéeg maccaat gi du pour yow pour équipe bi yëpp la ku ci nekk ci war a maccaat. mais poobar lan moo la dal. ko si man daal damay liw. liw liw laa du ma xaar bañ may omelette ba koy seetaan. courant kër ga bu ko coupé fii nga may fekk ci versaire bii fii jigéen amul droit dugg ci biir versaire xanaa xamoo loolu. aw daa war a noppi. ah kër si di wax daa war a tëj sa gémmiñ nay respecté sa consigne yi. lan nga bu safu dara moo tax ma jël kaani geeg poobar bi pour renforcer ko pour defal ko marina yaasa.